الحمد لله جزيل نعمته لا إله إلا الله لا خروج ما هي عين ko léegi ne ko gannaaw mu sëñ Cheikh Saliou ko defoon ci uh, tànnoon la doy la teg la fi kon nag gannaaw léegi dugg nañ ba léegi nag kon dama bëgg noonu la tegoon nga doxin fa doxin wu sell bu rafet ba agsi fii tey ma bëgg nga nga yeesal ko ngeen dox doxin wa ngeen daa doxee loolu moom taxaw moom moom daa ko woon wax ko ko ne ko ko ne ko ko wax ñu ko bokkal ñëpp moom mii laa fa teg maa ngi jot ci yi ak taalibe yi ñu def ci seen loxo nañ ko daa defee jëf ci di ci dox di ci wax di ci jëf nañ ko def jox naa ko ndigal ñëpp kilifa yi kilifa yeeg taalibe ñu nekk seen gannaaw ñëpp jox nañu ndigal ñu def ci seen loxo liñ ko daan defee. ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat Serigne tubaa Mbacke mi sunu yaakaar tey ak ëllëg di am mbégte bu baax nag ci teewaay bi ñu teew fii tey ci kanamu soxna Gàdd Busa suñu kilifa gu tedd ki ak soxna Astou Mbacke mi nga xam ne mooy suñu jawrin ñun ñëpp kon ñuy woote nag ci ndigalul sëñ Sidi Mokhtar ci bis boo xam ne mu ngi jëm ci maawu raxmati ci kanam lu jëmale maawu raxmati kanam ñu ngi koy defee ci kër tubaab Touba gi nekk ci Daaru Manaan le 15 le 15 bii ñu jëm taw tombeeg bi subu àjjuma di fukki fan ak juróom ci weeru tubaab kon ñoo ngi ci woo góor di ci woo jigéen di ci woo mag di ci woo ndaw rawatina nag daayira yi fédération ahlu kafe Touba bi nga xam maa ko koy maa ngi woo ñëpp góor ñeeg jigéen nañ ñëpp nañ ñëw fekk ñu kër sëñ Touba gi ci Daaru Manaan ci Daaru Manaan ak kuréelu soppee Maam Cheikh Ibrahima Fall ak waa Matlabul Fawzayni set setal ñoo ngi leen ci woo ak Matlabul Fawzayni ONC ak soppe Serigne Bassirou fédération soppe Serigne Bassirou rawatina nag njabootu maam Cheikh Rahim Fall Baye Fall ak waa marché ambulant yi bàyyi wuñ ñëpp na ñëpp ñëw ndax dañ cee war a jàpp ndax gis ngeen li ñuy jànkonteel ci dëkk bi te e, kilifa yi ngànk dëkk bi liggéey bi ndox mi sonn nañ lool lool rawatina nag ñun jigéen ndax li ñuy ñàkk war nañ ko mën a def ci ndox mi ndax lu mu gàtt gàtt rek boo xëyee di nga mën a jënd crédit lu mu gàtt gàtt 1000 francs te loolu jëmut fenn waxuñu ci dara kon nañ ko def ci ndoxum Tuubaa mi nañ ñëpp ñëw képp koo xam ne bu la maam jaara a sa wowoon nga ñëw na nga ñu fekk ci kër Sëñ Tuubaa dinañ fa waxtaane lu am solo man nag maa ngi woote ci kàddu soxna Astu bëgg nag nit ñi jàpp ci taxaw bu baax mboolem fu mbooloo nekk ñu ngi lay tàllal loxo ndax nga jàpp ci ba ndox mi mën a yegg fi mu war yegg ndax ku xam ne ne Tuubaa dafa yokk te ndox nit bu yokkoo ndox ma war a yokku ñu jàllale ko foo xam ne fi amutoon fépp am te ñun daal fépp fu mbooloo nekk ci dëkk beeg ñi néew ci dëkk beeg fépp fu mbooloo nekk rek ñi lay taalal loxo nga ñëw jàpp ci ndox mi ndax am na lu ci war a waxtaane la 15 ca kër sëñ Touba ga ca gaarasu Dakar te ñëpp lañ woo góor jigéen mag ndaw na ñëpp ñëw fekk nu foofe boo ñëwee da nga xam la def xam sëñ Cheikh Aliou taxawaay bi mu taxaw xam ne sonn na lool nag te coono boobu nag nit ñi doon ko ci mën a génne yàlla na ko sëñ Touba jàppale bañ gis ci li mu li mu ciy bëgg daal yàlla na ko sëñ Touba yeggaleel ci barkeb sëñ toog ci kanamu soxna Kàddu Buso di waxee ci kàddoom euh, ci teewaayu soxna Astu ak mboole mbokk yi fi nekk yëpp waaw di yëgle benn bis boo xam ne ni bis bu am solo la ci yoonu murit ndax euh, ndoxum Tuuba ndox daanaka mooy àdduna ca ndox moom mooy lépp kon nag sun sun boroom boole ci sëñ Tuuba ñu dëkk ci dëkkam bu sell bii Euh, ndox mi daanaka di ci di fi jafe-jafe ndax euh, ndox mu neex ah, jafe-jafe la ci Touba te it sëñ Touba dara waru koo jafe te ndax ñu ñu ndax taalibe sëñ Touba yi xëjuñ ci dara ñoo ngi woo daayira yëpp ñoo ngi woo képp ku sopp sëriñ Touba képp ku ko bëgg képp ku koy liggéeyal. soxna gàdd bu so moo moo joxe enveloppe bi ci lim lim liggéey bi mu daan def li jubluwu ci lu soññi taalibe yi. soñ ñi nga xam ne ni ñoo ci bokk ci xam ne nii moom kat dëgg moo nekk fii daanaka di kilifa ñu bari toog fii ca fas yéene di liggéey def lii ba dajalul tool nii kon ñun xawma nu ñu war a def kon ñun ñëpp nañ nañ ko nañ nañ ko roy te kenn ku ne mbooloo ba nga am nga soññ ko waxtaan ak moom di dajale di dajale addiye yi di ko di ko def ci ndoxum Tuubaa mi ndax lii kat ab soññee la. addi soxna gàdd ci ndax mën nañ ni duñ ni kuleet ba ba maamu dox tàmbalee ba léegi sëñ sëñ Cheikh Aliou leen ci bopp bi ñoom sëdd sëñ Tuubaa ñun taalibe ñu topp ci seen naa boobu ba léegi nii lañ koy defe ak soxna Astou Mbacké mi seen xëy ak seen bu ngoonte ci la ne bu ñu xoolee nag sëdd sëñ nii ñu waroon toog ci kaw ñu di leen siyaare ñoo wàccee seen bopp batu bi kon taalibe yi war nañoo daw ñëw kon ñoo ngi wooy ñëpp nañ ñëw royu kaay yaa ngi nii ñu ngi ñuy bu baax nañ ñëpp ñëw ñu bëgg yëkkati suñu kàddu ñun itam ci liggéey bi nga xam ni Cheikh Sidal Makhtar al xalifatul am li muridin ayyadahu llah wa nasarahu moo ko yëkkati eh, fedd liwaat ko ci loxol sëriñ Cheikh Mbàkkam sëriñ Aliyu te mu jëm ci ndoxu Tuuba ñu koy wax maa u rahma ndigal yoo xam ni ci sëriñ bi la bàyyi ko muy yu yees jëmaat ci moom ngir mu ànd waxtaane lépp lu jëm ci ndoxu Tuuba nañuy mën a def ba ndox mi doy ba noppi euh, am qualité muy waxtaan woo xam ne incha allahu dina ko séq ak ñëpp waxtaan woowu nag li ko tax a jóg mooy ñu xool nu ñuy def ba sëriñ bi li mu bëgg ci Touba ci ndox mi mu am ko kenn umpulewul nag ni Touba état bi li man lépp ci wàllu ndox mi ngi ko fiy def sant leen bu baax gërëm leen ci loolu sëriñ bi itam lépp li nga xam ni mën na ko mu ngi koy fab di ko joyal eh, ci sëriñ Cheikh Aliou mu koy defal ci ndox mi taalibey sëriñ Tuubaa itam duñ dañ mukk di fab seenu ñaq di ko indi di ko def ci maa u raxma ba bu ngeen gisee forage yi nga xam ni sëriñ Cheikh Aliou def na ko fi ak leneen ci ay kilomètres ci ay tiwo loolu lépp taalibey la moo tax ñu bëgg a waxtaane waat eh, nu ko la ñuy def ba Touba ndox mi mën a doy ba noppi sell ñëpp mën caa jot suñu waxtaanee ba tënku nag moom sëriñ Cheikh Aliou dina delluwaat ci sëriñ bi xamal ko ni ko li nga santaane woon nii lañ ko tënkee te lii lañ ci xalaat jàpp nañu ko def lii lii dina am su ko defee nag sëriñ bi moo su boobaa mooy xam naka lay jëfee wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.